ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonante bi di sant suñuy ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Bassirou Mbacke borom bi damay dund yéen internet yi di am contentement jëlal yéen chaque jour bi moo leen indi li gën a fës ci boobu xibaaru làmb ci noonu damay ñu ñëw feggoo la ñu daal di ñëw suñu làmb mbay jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay nuyu di nuyu suñ mbokk yépp yi nga xamante ne bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam namoon nag li nga xamante ne bii mooy plateau bi na moon leen yéen ñaar ndax presque mën naa ne semaine bi yëpp ñu ngi woon ci àll bi ñu ngi soog a retourné ñu ngi a ñëpp jàmm di leen ñaanal jàmm yéen ñi nga xamante ne bi yéen ñaar yéen a fi nekkoon assuré affaire ba léegi di ñaan yàlla jàmm yàgg ci réew mi amiin Assane nuyu naa la. Ndeye di la fay di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo yéen pour indi leen di gën a fës ci yenn kaay yi a ginnaaw boo ko indee nag dafa indee waaye dañoo indil pâte bi indil macaroni. Mhm. j'adore vermicelle j'adore spaghetti j'adore. Mhm. teg ci ataaya. Mhm. dina jigéen ñi ku bëgg sa wàññi neex boo taajee ñëpp kontaan. dina utiliser gamme j'adore dafa complet mais baaw ko la ci doon. li ci topp mooy eau koyaar gis ngeen di daw ci baaru suufu écran bi di euh, eau ba nga xamante ne bii moom la Sénégal yëpp taamu wax naa leen ko dafa manqué nag ci réew mi fi mu toll nii ndax dañu koy xëccoo. waa Kayar yokk leen seen loxo ndax réew mee leen bëgg réew mee leen taamu ndax Kayar doo nga ko yor. mu ngi noonu nag ñoo ci mën foofu jeudi ci xëtu mu njëkk Sa Thiès le 26 kii di Balla Gaye numéro 2 le 31 juillet ñaari doomu dubale si wéy nag Mbaye Babacar ñu mag la ñu ñoom ñaar ñëpp war a bëre ci li nga xamante ne bii moom mooy daanaka ci benn weer kii day bëre mois de juin. kii bëre mois de juillet ñoom ñaar di ay doomu Double Less Assane ñu ngi li leen di xaar bëri na ndax kii am na Bombardier kii am ki nga xamante ne bii moom mooy Moussa Ndoye di ñaari adversaire ya nga xamante ne bii ñaari adversaire de taille lañu. dëgg la Mbaye Babacar nga bokk ndey ak bàyyi nit nekk ci làmb ji ba pare àgg ci benn niveau bi ci làmb bëriwul li nga koy gis donc Balla Gaye ak Sa Thiès dañ ko réussir kii war a bëre ak euh, Moussa Ndoye kii war a bëre ak euh, Bombardier ñoom ñaar ñëpp. a à l'espace de presque un mois ñu war a bëre ñu fàttali leen nag ñoom cette situation ci làmb bokkul ndax Sa Thiès dernier combat am daf ko pertoon contre Boy Niang le 11 dix 2018 alors que Balla de 2 moom ci Modou Lo la mujj le 13 janvier 2019. mu ngi doon nag ñaar def yi nga xamante ne ni mooy xaar Kefran may ci parcelle mbooloo journal la mu xëy di wax nee bañ a daanoo ndax ngeen allah ak li mu nekk mbër ma nga xamante ne bii xamee wuñu ko wax day ñëw def li muy def dem yoonam Assane mu nekk la nga xamante ne bii am na ñaari defi yu koy xaar mu war ko relever war a garder li nga xamante ne bii loolu la moomal boppam. dëgg la Mbaye Babacar Franc jusqu'à présent déggagul muñal defagum na neuf combats neuf combats yi daf ko daane donc mu war a am ñaari defi yoo xam ne nii war na ko am contre Tyson 2 war na garder invincible tam maanaam mu nekk continuer di bañ daanu ci làmb ji waaye également mu. ubbi porte VIP ndax bu daanee Tyson day dem directement ci VIP ñu fàttali ne carrière Franc am na ci 9 combats 9 victoires daane na Géej euh, Bambulaan daane na Jara 2 daane na Rems Serigne Ndiaye de Caatu yoof Njaga Doole Mbaytin 2 Ngeer ak Bébé Saloum Bébé Saloum la mujj daane donc mu war a jàkkaarloog euh, kii di Tyson 2 le 9 juin war a garder invincible itam. Demba Ndiaye Galaba ki nga xam ne mooy yi daal ñu ngi daan taxawal fekk ci arène nationale. Ah. kii dab daan nag moo ko daan may ci numéro 2 ku lay war a di nekkoon lamb ja nga xamante ne bii macha allah amateur yi génnoon nañu ñëwoon nañ fële nga xam ne moom mooy arène nationale wuyu si yi daal ñi ngi borom ñi ngi production nekk première journée ci saison bi ren. mais gis nañ ne ki nga xamante ne bii moom mooy euh, dab daan bien vrai que daan na fa ki nga xam ne moom mooy mbay Junior Mbaye Mbaye Tine Junior wante tamit gis nañ ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Kaw Gourdé ak ki nga xamante ne bii moom mooy Caatu Daouda Fall wane nañ fa seen bopp. dëgg la Mbaye Babacar 2 minutes 35 le combat dab daan Mbaye Tine Junior euh, durée foofu la ko dab daan daane ba pare. Euh, defi nag euh, défier nag euh, ki nga xam ne ni moom mooy Lac de Guiers 2 nga xam ne moom mooy mentoru kii di Mbaye Tine 2 ay combat yu bëri amoon nañ fa démb lañ def première journée tournoi des espoirs bi nga xam ne nii yi daal moo ko tëgg donc boobu la caatu Daouda Fall daane Yankaaw Kaw Gourdin daane fa Albarka Kayre combat préliminaire yi réparé 2 moo fa daane Teex Jël Hercule Boy daane Boy Diaz bébé Elton ak euh, ñàkk jariñu dóor yi ñu match nul Malem ñaani daane euh, déranger ñax euh, kii di jeex jàmm daane fa ama ama bu yoof Washington daan fa bébé sagu cam calambeer daana fa bébé langsane kooku calambeer la mooy xale xale bu pare bi nee moom daa ñëw bu fas yéene wane boppam ci làmb ji calambeer de bu bu nuróo turam war naa mën a gaaw <laughs> càll mbeer mooy ngelaw lu gaaw loolu nga xamante ne bii en général euh, doy na waar daal bàyyi noonu. ba mooy ñu dajee ñoom ci seen biir waxtaan ba ñu génnee ki ñu teg ci bopp bi wax nga ko moom mooy mobile numéro 2 di mbër nga xamante ne bii macha allah mën na communication teyit am na yoon ci làmb. ANGLS moom mooy association nationale des jeunes lutteurs du Sénégal comme ni ko Ndeye Mbaka waxee euh, Onde le Foot moo ko jiite woon waaye dimanche bi passé dañu def seen assemblée générale euh, renouveler seen bureau bi ki ñu teg ci bopp bi nag moom mooy mobile 2 moom moo nekk président bi léegi euh, kii di vice président bi moom mooy Pape euh, Boy Djiné euh, deuxième vice-président bi booy Jolof secretaire général Gakou 2 trésorier Agagou euh, chargé de la communication Kona kon ñu gis ne kii di la Lofoum mu nekkoon président bi instant yi nekkul ci bureau bi. est-ce que amul lu dox seen diggante ñoom ñooñu nga xamante ne bii ñoom ñooy association des jeunes leaders du Sénégal. non yaakaar naa ne dara doxu suñu diggante puisque après réunion bi Ondou Lofoum réagir na ci ci suñu làmb. li mu fa wax. Euh, wane na ne euh, amuñu problème parce que woote na fa wax na ñi nga xam ne nii autorités yi nga xam ne nii fas yéene la leen prévoir pour financer leen permettre leen seen première activité ñu réaliser ko en tout cas réaction bi mu def mm, liñ ci gis mooy que ne ñoom amuñ problème. ca mhm. noonu nag démarrage du 21e édition drapeau du chef de l'État fee ca Kaolack Mbaye tey jii dañuy amal visite médicale ba passage ak tirage yi Mbaye di la nga euh, déen jongante ba nga xamante ne bii euh, njiitu réew mi lañ koy dippee at mu jot ñu koy wax drapeau chef at mu jot nag benn raison di euh, accueillir ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy Sénégal yépp ren mu war a amee foofu ca Kaolack Assane ni ko Ndeye Mbacke waxee tey moom mooy Euh, PC bi ak li nga xam ne moom mooy tirage bi. dëgg la Mbaye Babacar mën naa ne woy wa daanu na tey la lépp di démarrer ndax pesage yi comme ni nga ko waxee tey lay démarrer ñi nga xam ne ni dañu ëppal ay kilo dañ di génne équipe yooyu remplacer leen tey lañ def également tirage yi tirage yi maanaam euh, compétition euh, par équipe yi yan équipe ñoom ñooy daje ci premier phase de groupe yi tey la également visite médicale yi mbër yi dañ dem seeti médecin yi ñi nga xam ne nii médecin yi wéroo dañ lay écarter également. ca loolu nag lu bees tàq Jaks Mbaphat Tour du 12 juin au 25 juillet bay Babacar ku ko nag mooy Jaks lam teg moom ngisu 12 millions pour Kaolack. di initiative ba nga xamante ne bii dañu koy rafetlu bu baax a baax Jaks production andil ko li nga xamante ne bii moom mooy mbër yi teg li nga xamante ne bii moom mooy fukki million ak ñaar wër a wër yenn régions yi ci réew mi tëgg fa li nga xamante ne bii mooy tournoi de lutte sa frappe. dëgg la Mbaye Babacar Jax mbëppat tour la ko tuddee mi ngi war a démarrer le 12 juin ba le cinq juillet. douze millions la ciy teg mi ngi war a dem nag ci Kolda Saint-Louis Thiès kayaar ak Kër Moussa ak Pout euh, tournoi bi mi ngi commencé le samedi 12 euh, juin mi ngi ko war a démarrer Kër Moussa mi ngi fay teg 1 million après loolu mu dem le dimanche 27 juin mu dem fa Pout euh, teg fa 1 million le juin mu dem Saint-Louis teg fa 3 million le 4 juillet mu dem Kolda teg fa 3 million le 11 juillet mu dem Kayar teg fa 1 mi ngi terminer le 25 juillet. à Thiès euh, avec une mise de 3 millions Mbaye Babacar. am na solo Assane Waalo. te noonu nag galaaba amoon féete Diofior buur moo ko jël wane na ne fa la dëkk ñu tëgg làmb ci sa dëkk fi nga juddoo yaroo fa màgg fa nga dem wane sa bopp bëre ba dem final jël drapeau bi yaakaar naa dara daaxu ko te keroog ñun ñi nga xamante ni bii ña nga woon ca làmb ja gis nañ ne Ibou Ndiaye champion la te it wane na fi ma dëkk mbër bu fi ñëw luñ fi teg man maa ko war a jël moom moo jël li nga xamante ne bii moom mooy poids lourd bi wante poids lese ba ba tey génnul biir Diofior ndax ki nga xamante ne bii moom mooy baabu saar bu Diofior moom mooy jël li nga xam ne moom mooy poids léger ba kon daal mën na nañoo wax ne làmb Diofior 100 pour cent Diofior ñoo ko jël. dëgg la Mbaye Babacar loolu mu ngi xewe woon mardi mardi bi génn vingt et un lutteurs nag ñoom ñoo inscrit woon ci gala boobu euh, ñu xam ñoo fàttali ne ne mise bi sept nag la woon ak 65000 francs donc Obali moo ko jël moom moo daanee final Ngaan Seck nga gën ko xam ci Ibou Senghor 2. Hmm. ginnaaw bi ñu ko daanee gagné na ñeenti nag ak 15000 euh, francs kii di Ibou Senghor de am na ñaari nag ak benn ségu wala euh, enveloppe bu 10 000 Uh-huh. mbay baa ko loolu mooy dërëm bi. yënul gaal gi yënul gaal te noonu nag ba leen desandi lañ war a séddoo lu fukki million ak juróom-ñeent ak genn wàll moom la ñu tegal équipe ya nga xam ne ñoom ñoo war a daje fële ca Kaolack ndàngaan dëkk ba ca Tabaya comme ni ma la ko waxee sànq nag euh, dañuy bëre par équipe suñu paree asal. bëri individuellement ku ci nekk bëri ak sa morom ci catégorie bi nga tolloon. dëgg la Mbaye Babacar 19 euh, millions 500 mille donc mooy mise globale bi nga xam ne nii moom la CNG teg euh, ren ci Kaolack euh, durant drapeau chef de l' état boobu donc tey comme ni nga ko waxee sànq tey la pesage yi visite médical yi ak tiirage yi waaye suba lay compétition par équipe di démarrer suba ci vendredi bi samedi ñu def compétition par individuel dimanche ñu def finale te noonu nag la ñuy jeexalee ginnaaw ba président du CNG daal di ñàkk waajuram bu jigéen démb ci arène nationale la fa une minute de silence rendre hommage ki nga xamante ne bii moom mooy euh, yaayu Bira di Adja Adama Thior ñu koy ñaanal bu baax a baax suñ borom yërëm ko te jéggal ko asa dëgg la démb la ci komba dab daan ak euh, mbaytin junior bi mu am avant grand combat bi ñu def benn une minute de silence jagleel ko kii di waajuru euh, Bira Sène mi nga xam ne nii moom moo génn àdduna bër ki démb mi ngi amoon nag quatre-vingt-cinq ans maanaam euh, téeméer yu manqué ñeenti at. macha allah mu ngi noonu loolu moo nekkoon li gën a fës ci xibaaru làmb mbay lay tàggatoo ay ca ba li bu Louga bi waaw. <laughs> vraiment moom mooy pilier de 100 bi. moom mm-hmm. moo war a jongante ak luur yi nga xamante ne bi ñoo jóge ci yeneen raison bi Assane mm-hmm. mën nañ jàpp ne Moustapha nag moom moo nar a takk xaaw bi maanaam brassard bi foofu ca Louga jiital équipe bu Louga bi foofu ca drapeau du chef de l'État dëgg la Mbaye Babacar comme ni ko raison yëpp di defee Louga également dévoilé na cinq majeurs yi nga xam ne ñoom ñoo koy représenté ci Kaolack mm-hmm. cent vingt kilos bi comme ni nga ko waxee Moustapha Dione la cent bi Mbaye Dione vingt 86 kilos bi nekk Cheikh ñas Niass 76 euh, kilos bi Moussa Pouy 66 euh, kilos bi nekk Alsane Dione équipe bi daal ñoom ñoo war a présenter Louga euh, fii ci Kaolack à partir de suba ba dimanche incha allah. incha allah turam dëgg la amul surnom. peut-être turam dëgg la la war a doon. mu ngi doon nag bu ci bopp xibaaru lamb allah bu ci yàlla àndee. suba ci beneen revue de presse wante jaajëfal Ndeye Mbacke suñu mbokku internet yi ndax gis na li nga xamante ne bii noonu la ñuy jàppee ci liggéey bi gis nañ li nga xamante ne bii tamit noonu la ñuy toppee ci noonu laay jaajëfal bu baax a baax sama mag sama xarit Abdou Lahat Faye taalibe Serigne Abdou Khadr Sarr nekk fële ca Italie dañu topp saa su nekk ci Leewtoo TV Baylaat Faye taalibe Mame Mbaye Sarr bég naa ci yow yàlla na sa jàmm yàgg.